Euh, bokk yi ñuy seetaan fu ñu mën nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, di leen nuyoo ci béréb bu màgg bu tedd bi di jumaa ji ni ko Cheikh Abdoul Ahad Bousso mi waxee nu ñëw fii ci ànd ak yéen ci waa daaira Muxaddamatul Xidma mi nga xam ne ñoo yore wàllu jumaa ji ak lu jëm ci sayto gi ak taxawoo gi di jël nuyoo bu sell nag bu bu tedd di ko teg ci loxo Cheikh Abdou Lahad mi ñu feggool bu ko defee bu ñu ko tuddee rek euh, dana nu mën a jàllaleel nuyoo bi ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ak mbooleem membre yi nga xam ne ñoo bokk ci daayira bii di Muxaddamatul Xidma di ñaan yàlla sunu borom mu dool leen a kattanal te dëgëral leen te jéego boo leen ci jéegi mu dajale leen ci ak ngërëmul ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul alhamdulilah noo ngi sant yàlla bu baax ci jataay bii nga xam ne euh, jataay yu ngëneel la jataay yu tawfiq la ndax dafay mel ni nit bu dee nekk ci quartier wala nit bu fekkee ne dafay nekk ci ab yëngu euh, waxtu wu nekk rek la nga ciy jublu mooy wane luy tax doomu aadama bi mën a jariñu wala luy tax nit ki mën a mucc wala luy tax doomu bi li muy sàkku mu mën ko am euh, moo waral jataay bii tey ci béréb bu sell bi nu nekk di dëgmal bis bu màgg boo xam ne dafay mel ni lu ëpp ci taalibe yi dana nu bàyyi ko ca seeni béréb ñëw jëm si ci béréb bu sell bi di jumaa ji ñëw ci dëkk bi di tuuba ngir ñëw def si seeni ziyaara ñëw ngir màggal si loolu nag ak laaye biire la goo xam ne nun ñëpp na ko bokk ndax Sëriñ Touba moom day njariñ loo xam ne dara ci ay lor nekku ci ba noppi it ñaan boroomam nit ñi jariñ ci moom kon loolu doyoon na ne kon defe naa nit mën naa ñàkk xam mbaa mu waaye lu koy lor moom mën naa bañ a bàyyi ko sëriñ bi ndax sëriñ bi moom amul benn lor waaye nag nit ki bu jaawalee li muy li muy li muy wut defe naa ba ci àdduna bi sax ni ko ni ñu ko organiser ku jaawale ab code defe naa des na la na juum nga ca la nga la nga def doon ko ne la fa nekk moom ma nga fa te ku ko awale ci yoon wa jot ca yow mi jaawale yow la ñuy won ne jaawale nga rek nga seetaat yoon woo cee jaar loolu it mooy sëriñ bi ndax koo xam ne euh, nafaani wa bi yanfaul wara kon kon moom engagement la sax ndax bu nee yàlla jariñ na ma ba noppi na ci man la nit ñi jariñoo kon bëgg na ko jariñ ci moom waaye wan fex bi yel waraa it jariñal nit ñi ci man kon sëriñ bi moom euh, njariñ rek la la ko kenn ca euh, bindkat yooyu nekkoon ca gànnaar doon wax ne cheikhun tajarrada lil yaa fa day danuhu naful wala fii bawaadihi wa amsaari sëñ Tuubaa moom buñ la doon laaj luy ji luy jikkoom loolu yu meloom nee na mooy jariñ bi ndee fi kon nag njëriñ nit ñi rek moo taxoon sëriñ bi jóg ba noppi di yërmande yàlla yërmande suñu borom ci kaw suuf kon kii jariñe te yërëm yërëmande ku ñëw fi moom ñaar yëpp war nga ko am war nga am yërëm yërmande suñu borom ju bàyyikoo ci moom ñëw ci yow waaye war nga am njëriñ it loo jëriñoo te loolu lu ci nekk dañ koo firndeel ci kanamam lii ma la wax nii léegi am na keneen koo xam ne daf ko daf koy daf koy tagg bis ci njaareem ba yàgg mu ne ko limalam takkun nabiya waaye yow ak nii nga mel nii nga baaxee lu tax doonoo ab yonent nag sax jibril di ñëw ci yow di la indil wax yu sëñ bi na ko ëpp nga waaye sëñ bi moo wax ne bañ demee ba waxtu fajar yonent bi sallallahu alayhi bi ñu jullee suba ba moo ne ko neel naar bi na eggale li mu doon wax mu wéyal wax ja ba egg ci ne ko alam takun rahmatan lil xalqi arsalaha rabbul anami fa amma bayna aqtaari kon wane na ne yow ndax yàlla bi mu lay wàccee nekkoo yërmande joo xam ne laj ñi ñëpp kon sëñ Tuubaa euh, yërmande suñ suñ suñ boroom la joo xam daf ko wàcc ci kaw suuf li ci jëkk dafa woote bisub ñu di ko santale boroomam subhaanahu wa taala day mel ni lu yomb la nag ndax ba liggéey ba jotee moom moo moo génnoon dem liggéey yi jànkonte ko ci coono alhamdulilah yi bii nu koy màggale muy Touba fii la signé woon contrat bi digganteem ak boroomam fii la génne woon it dem liggéey yi ba muy ñaan lam nekk nekk ci liggéey bi it la muy nekk nekk ci tumurank yi danoon doon ñaan boroomam mu yombal ak dellusiwam ci dëkk bii di Touba waaye def Touba it muy mujjug dëkkuwaayam yassir ruju'i wax mi nii waqi nii adal wara wal tuddum lii tam ma iskaana kon loolu ñaan gu yàlla nangu la ci moom ba tax tey ak ñibbisiam ci dëkk bi am fii mu nekk tey ji jumaa ji it mu ñaanoon borom mu nekk mujjub dëkkuwaayam kon loolu ñaan gu yàlla nangu la ci sëriñ bi Tuubaa di béréb boo xam ne nag euh, ñëw fi ziyaara rek delluwaat dana dindi dana dindi dana tàggale nit ak mboolem nëx-nëxi àdduna ak alaaxira loola it am na ko ko bindoon ku ñuy wax Serigne Cheikh Thioro doomi sëñ Mor Anta Sali la moo waxoon ne huwa si man ataa man li maskanihi xayral masakini tuuba min daddin xaraja kon day mel ni eh, wax loolu sëñ Mour Lamine Diop sëñ Mouhamad Lamine Gaye Firdawsi da ko tekki dafa waxoon ne li ma gis sëñ Touba wax ko ci Touba li ma dégg sëñ Touba wax ko ci Touba ak li ma déggut ak li ma gis sëñ Touba bind ko ci Touba ak li ma gisut xanaa sàgganteeg doomu aadama ne kon ku fa ñëw benn yoon nga faa bañ a dellu siwaat sa aajo faju kon day mel ni loolu pas-pas dugg na ci positif dugg na ci yitte ju rëy dugg na fi kon day mel ni ku fi ñëw te te la ngay wut jotoo ca gis nga baat ba mu jiital ah, saggante doomu aadama waaye kon li ngay wut mën nga ko fa am ndax li ngay wut am na fi kon des na ci yow muy béréb boo xam ne nag euh, sëñ bi dafa bëggoon ko ko waggar ndax moom da ko fonkoon ba fi sancee dëkk fi muy Touba da koo bëggoon di ci ñaan boromam sañ fonkloo ko woon mag ñi it bëggoon nu fonk ko ba mel na ni ku ma a am yitte ci moom boo tuddee dëkk bi dana la won ne tudd nga lu sedd sama xol rawatina bu ñu ñëwee ne màggal gi ñëw na nag ñu bari bàyyi ko ci béréb yu bari ñëw na dañuy siyaare si jumaa ji war ma ji ngi tàmbalee ci dëkk bi euh, duñ nag rek ba ci jumaa ji waaye booy dugg si ci dëkk bi yëgal ne yaa ngi dugg ci xorom boo xam ne bu ñu warmaal la te kat alxuraan nee na woon ku warmaal euh, warmay suñ borom yi loolu moo gën ndax dana am lum la lum la jariñ te même aadaab yii ñuy ñuy jàngale teggi ni bi ko sëñ Tuubaa di tekki wax ne dana tënk ci juróom bokk na ci lu mu wax ne eh, xefsu xorma maanaam wattu wattu orma ak yitte ju kawe ak sant yàlla sëñ Tuubaa nee na ci ay teggin la bokk te kon wattu béréb bu suñ borom màggal ndax yàlla day màggal béréb màggal jëm màggal jëm béréb yi màggal defe naa lu toll ni ab yonent nga similoo ko ay dàll ci béréb màggal béréb boobaa ko waral kon suuf des na ko béréb des na ko màggal ngir la fa nekk wala ka fa nekk des na màggal jëmbit ngir la ne ca moom lay la ci suñu borom def kon képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci béréb bii di Touba ne yaa ngi màggal si ñëw di siyaare si la nga war a jëkk a yëg mooy yow boo ñëwee war ngaa sentir yëg ne tey jii de maa ngi ci bis bopp waxtu wii may wër jumaa ji wala waxtu wii may dugg ci dëkk bi bis la woon boo xam ne mbooloo jiitaloon na Serigne Touba seen yitte jëpp mooy faagaagal ko seen yitte jëpp mooy tàggale kook njabootam dëkk bii nga ñëwaat tey mu fees dell mbooloo bàyyi ko fu ne na nga xam ne taxawoon na wax ne sama kër yëpp a gent sama njaboot gépp laa tàggool li ma ko yóbbee nag sama sang bii di rasulullahi rek lu ma ko tagg ba jëmee ko ko rek mu gàtt te ba la maa bàyyi rek solool ko lu sa mbërtalu la war nga ca am yow yëg-yëg bu tal noonu ba ca toppit nga yëg ne euh, maa ngi ci béréb boo xam ne mooy béréb bi mu gënoon a bëgg te am na lu may wut si ci moom nga teewlu teewlu dafay dimbale nit ànd ak yéene nit du defandoo rek ci lu jóg nga àndandoo ndax du la jariñ dara da ngay fexe ba ànd ak yéene ju sell pas-pas bu leer xanaa lu gàtt-gàtt am na xasida goo man xanaa lu gàtt-gàtt boo ko mënuti tudd turu yàlla war nga ko man istixfaar man nga ko salaatu ala bi man nga ko kenn du dem cib teen yóbbaale woo goj wala yóbbaale woo baag ba noppi li yaakaarum ndox nit day ànd ak yéene ju sell ànd ak teewlu gu mag sëriñ bi moom siyaar gi daa mënta ñàkk waaye bu dee boo agsi wut fi moom doo am li ngay wut kon defe naa dana dana xaw a gàtt lool waaye des na ci pas-pas bi nga koy amee ak yitte ji kon boo ñëwee nga yëg ne yaa ngi ci béréb bu tedd koo xam ne moom day ab sangam bay Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxul dendandoo moom waxul taxaw di ko wër waxul ne fa wetu béréb ba di yuux waaye dafa wax ne sama lex bii dama koy laltaay ca ron ndëgg dalli Rasulullahi xaddi jaxaltuhu turaba naalihi yaa laytani laxidani bi fadlihi xolo jooju war ma waxul taxawandoo de kon ndax yow war ngaa cëppeelu ndax yow war ngay wadd di dal ndax yow war nga yuuxu xolo kii la mu wax ceeb sangam moom wax ne sama sang bii de bu ma ko séenoon muy dox bu ne jëyi tànk ba bëgg koo teg ci dégg wala mu bëgg koo teg ci jiit di ko fett wala jaan sëriñ bi nee na du ma dandale dégg sama lex bay laay daw dëpp ko ca kaw dégg rasul lay jogge ca beneen lex ba jàll xolo jooju waruma nga xam ne xaddil wiqaayatu rijlil mujtawa min shawkati ma a aqraba kon loolu wone na warama jum ko jox kon yow nga am war may maa ngi ñëw ci béréb bii te mooy béréb boo xam ne euh, kenn ci mag ñi dafa waxoon ne muy euh, sëriñ Mansour Diaw dafa waxoon ne saakal xadimu lasi man zaarahu li huda yahwi saadata wal bushra min allah képp ku ñëw siyaare si sëriñ Tuba ànd ak jub mooy teggin mooy worma mooy dal nee na booy ñibbi ak texe ak mbégte mu sax dàkk nga yóbbaale kon am na lis fiy ngoore loo xam ne la cay tax a jot mooy ma ak teggin kon da ngay teewlu sëñ bi yëg ko ci sa biir xol yëg ko ci ma fexe ba xam ne béréb bi lu bérébu yuuxu genn kilifa daana wax ne Tuubaa de xanaa ku fi dëkk boo mënta ñàkk soli dalit mënoo ñàkk yor mbaxana it xanaa tiim sëñ bi du ca war ngir ngir ngir worma joxante ko la boobu dafa ñëw ci barab yi ñuy denc ñii toog ci miir yi fenn fu ne waaye toog mu toog ci suuf ba yàgg mu a suuf su sëñ bi nekk ñi ëppoon ci ñu ko topp ne ci ku mënta dugg ci suuf it war a mën a am war may toog ca kaw loolu it mooy béréb bii tey bu fekkoon ne jenn doomi sëñ Tuubaa rek fi nekk wala kenn ca ñu toppoon sëñ Tuubaa rek fi nekk jar na warmaal ko rawatina dëkk boo xam ne sëriñ bi dafa nekk kon defe naa ko am benn yëg-yëg rek du béréb bu ñuy yuuxoo waaye béréb la boo xam ne man ngaa sant sëñ bi man ngaa tudd sëñ bi waaye mu nekk ak worma béréb la boo xam ne it dañ fay ziyaara ziyaara nag ak barkeelu ñu bari dañ koy umpule xam nga barke Serigne Touba dana barke ab néeg la waaye teggi nay bunt ba fi ne mënee sota jot ci barke te jaare woo ci ay teggin loolu Serigne Touba ko mu ne ku bëgg a jot li ci néeg bi jaareel ci bunt bi te bunt bi moo di ay teggin kon nga am war may teggin ci yaare sëñ bi barkeelu it xam nga jumaa dañ ci barkeelu ab sëriñ dañ ciy barkeelu alxuraan dañ ciy barkeelu sëñ Tuubaa nag dafa ñu ko jàngaloon dane alxuraan dañ ciy barkeeloo mooy jàng ko ak jëfee lam digle ak bàyyi tere jumaa yi dañ cey barkeeloo mooy julli fa boo ñëwee waxtu woo xam ne waxtu naafile la nga naafile bu lu du waxtu naafile bu waxtu jaamu yàlla jotee nga joxe say farata loolu des na ko barkeeloo ci jumaa mu ne ab sëriñ yi nag barkeeloo ko du raay ko waaye ab sëriñ barkeeloo ko mooy jëfee lam digle bàyyi lam tere fi ne loo mën a def ci jumaa ji boo doon xamp karaw yi di sangoo te jëfe woon ndigal doo am li ngay wut ndax lu tax laa tafalu shay'an bi ghayril idn fal idn shartun fi xabuli gis nga lu yàlla teg na des ciy jot da teg condition condition bi li teeli bi moom ngir mu jot ci sëñ Tuubaa ne mooy ndigal kon boo jaaru ci ndigal la sëñ ba jaxate waxoon ne lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fob njariñ jox ko te toppul ndigalam boo bëgg tey ki sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu dala jox ay njariñam kon teggin mooy li ci jiitu jumaa ji béréb la boo xam ne lépp war ma la ndax njabootu sëriñ baa ngi fi kenn ku ne am na fooy ziar am na nooy siyaare am na yitte jooy am waaye boo duggee nga yëg ne yow yaa ngi ci bërëb bu màgg bërëb bu bu sell béréb boo xam ne dañ ko war a war wormaal waaye mbokk mi boo mënta ñàkk am sax foto boo xam ne souvenir la wut ko ngir boo delloo nga ne man ne damaa amoon photo bii ngir sëñ waaye nag du lu ñuy yor di ko wëndeeloo ci mbedd ba fàtte ne ci barab bi nga nekk di yooxaloo naan da ngay seeneb wex wet gu ne déedéet war ma bu Sëriñ Tuubaa du bu caaxaan kenn du fi fowee kenn du fi caaxaane du béréb bu ñuy tàppantee pasoo ko waxtaane béréb bu tudd yàlla la béréb bu jàng xasiida la béréb bu worma la booy siyaarit mbokk mi béréb bi nee naa la sëriñ bi bu nekkee ba nga agsi ci moom door am li ngay wut kon loo doon wut boo ñëwee gis na la boo nuyoo ñaan sa ñaan yëg na la sëñ bi boo waroon jumaa ji tàmbalee ci bunt bii rek sa wetuk nday joor sa wetuk càmmoñ féetee moom te loolu genn kilifa moom ko ma sax ma ñëw fii di siyaare mu ne ma gànn boo ñëwatee mu xat wëral rek mu ne ma nitu yàlla ku ne bu ko soxol jëmee lu ne ci moom xam na ko boo doon wër jumaa ji rek wër dellowaat nee na bi ko sa jëmee ci moom rek lu ci ne ci taq-taq lu ci ne ci gàkk-gàkk lépp yëg na ko te xam na ko kon loolu rawatina boo agsee ba ca biir nga yëg ne ñeneen a ngi ñëw nga nga màggal ko rawatina it ki nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi muy Touba ndax koo xam ne jumaa ji mi ngi fi waxtu waxtu wu ne day mel ni am na nañu jàpp nañu màggal gi mooy bisub nangu ñaan màggal gi nga bàyyi say gen bàyyi ñëpp di xat-xatloo ci jumaa ji it defe naa loolu it bokkul ci li nga xam ne ak nite la bu fekkee ne nag am na gan goog war nga koo gunge indi ko ndax ñàkk xamam nga indi ko won ko loolu yell la waaye bu ko manee nag jërul ñëw di xat-xat loonte ndax yow jumaa jaa ngi fi te kii di ñëw man naa am bala fee ñëwaat dana yàgg dafa ñëw ngir ziyaara si nga warmal loon loola it bokk na ci teggin yi nga xam ne war na ci jumaa ji it euh, ginnaaw jamono bii nu toll dafa am lu xew Cheikh mun taxaa yàlla na ko fi yàlla doon lay yàggal te wéral ko muy kilifa gu mat kilifa goo xam ne dafa wone dëgg te dëgg day feeñ sëñ Tuubaa dafa waxoon ne alxaq wala yanqalibul baatilu wal baatilu baatilun wala yanqalibu alxaq afa man kaana ala alxaq wa in kaana waxda la yatihu aljamic wa man kaana ala albaatili wa in kaana maahu aljamaca la yatrukuunahu wa yabqa waxda imma aajilan aw aajila sëñ bi nee na ki ne ci dëgg moom dëgg moom du soppi kuy neen waaye lu bu ñëpp toppee nekkoo ci dëggit nee na ñëpp ay xëy la waaye boo nekkee ci dëggit ku la woon ginnaaw dana xëy ñëw te te lu lu war sëñ bi doxee na ko waxee na ko charte buñ tëral it sëñ Tuubaa daf noo digaloon ne ñooñ àdduna ñi na ngeen di mudaarante ak ñoom ak li ñu tuddee ak mulaataf muy négocier ak moral na koy defanteek ñoom ba kañ feeg yóbbuwul leen ci lu yàq seen diine kon lay mel ni charte la ci booy dugg war ma ji jumaa ji am na ñu fi nekk am na ñoo xam ne bàyyi nañ seen i kër bàyyi seeni gan ngir saytule la yow sa li nga am muy jumaa jeek bërëb bi kon charte yan fi tëral na ko def boo ñëwee ñu ne laalal lii laalal ndigal la boo ñëwee ñu ne takkal lii takkal ndax ndigal la ndax sëñ bi da cee joxe ndigal te defe naa kuy déglu déglu nga déclaration bi Serigne Cheikh Bachirou Mbacké wax ba muy wax ne sant na murid bu ne ko mën sax nga wut li takk nga ko andi ko ci kër sëñ bi baa nga wut foo foo ko joxe kon yow sart la ci yow ci boo koy jëf nga ne maa ngi jëfe ndigalu sëriñ bi ndax kat murid fooram mooy ndigal ki la koy digal da ngay xam ne daa nga fi ñëw ay at te kenn santuloo ko daa nga fi ñëw ay at kenn waxuloo ko tey jamono laaj loola te jamono bu soppi ko dañuy dox ànd ak moom ca nam nam nam soppi ko yàqul pas-pasu murit bi yàqul gëmam gi sëriñ bi yokkul lam jàpp ci sëriñ Tuubaa waaye ndigal la loo xam ne rek sëñ bi da ko santaane nañ ko def kon fenn fu nekk fan la ca jaarloo bu nee nañ moytu raj rajloo bi nañ ko moytandiku image bi war a génn lañ ca war a wax mooy ndax nit ki buy jëf na jëf ngir ndigal waaye na bàyyi waale xel nag ka doon ab yàqkat bunt wut bunt bu sew bu muy jaar xanaa nag damay jàpp ne benn murit bu ne dana ruusa def luy tax sa kilifa am jam-jam wala sa kilifa am kersa jaare ci yow kenn ku ne daal la mu war a teg loxo mooy man de maa ngi màggali am yéenay dem waaye lépp luy tax sëñ bi lu am lu mu lu mu bëgg yàlla bu ma ko def yàlla bu ma ko wax maanaam bu kenn ku nekk yanulee sëñ bi lool rek li sëñ bi bëgg dana am waaye boo bëggee doxee neneen yaa ngi yàq ndax bu ëllëgee bu ñu waxee lu ñu warul wax xuloo xeex du ko faj da ngay fexe ba defar sa jëmm yow ba kenn lu jaare fi yow yëpp sëriñ bi kenn lu jaare fi yow it am bunt kon mboolem sart buñ la digal def ko sàmmante koog sant di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ñoom it ci ci ci ci nin ko doxale ci worma ji waaye doxee ko ci yitte ji doxee ko ci laaye biire bokk yi waxtu wu nekk guddeeg bëccëg ndax ñi fiy ñëw ñëpp bokkuñu damay wax ne jumaa ji moom béréb la boo xam ne ku am dal am tolérance am teggin moo fi mën a nekk ndax am na am gànna mesere moo xam ne buy ñëw xaal bi muy indaale ak yëg-yëg bi muy indaale kooku ku dul dalal ko won ko yoon wu mën a jaar ku dë mënu ko ndax ñëwewut sagoom loolu nag courant yi tolloowun pas-pas yi tolloowun yëg-yëg yi tolloowun waaye nag lu mu tolloo di ko tolloo di ko ña nga fa fekk ñu di la woon mooy tey yow mii bu ne woon dara ñëwoon na ngir bëgg a yàq béréb bi dañuy laaj bakkan murit bu ne woon tey jii dañoo bëgg a màbb jumaa ji waaye sa bakkan la ñuy laaj ngir jumaa ji du màbb nga joxe sa bakkan koo xam ne nag bu nee la joxeel sa bakkan ngir li sëñ bi bëgg am jaral na la sa bakkan xanaa kon defal nii nga def ko delluwaat dana yomb ci yow kon nag maa ngi sant bokk yëpp maa ngi jégalu bokk yëpp ngeen baal na wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. fa tabarakallahu jërëjëf sëriñ Ganna eh, waxtaan wi am na solo lool te it képp koo xam ne ba ngaa dégg loo mën a jariñoo muy ab yóbbal ci booy ñëw eh, doy na sëkk ab yóbbal message la it boo xam ne jàll na lool macha allah ak laabire la nag. goo xam ne dafay aju ci njàngalem sëriñ bi ci bëgg gi mu bëgg ku warmaal barab bi ak nim daale ne nañ ko warmaale tënk ko ci ñaari bayit li sëñ Gana wax lépp mën naa tënk ci ñaari bayit yooyu muy wa jannatan li dhalikin muridi wa junnatan han haatikin maridi wa man fahan li kulli haadin muslimi wa madd fahan han kulli haadin mujrimi àjjana lay doon ak njariñ ci ku indi aw yiw waaye aw yat lay doon aku pakk ci koo xam ne da ngaa indi ab safaan màggal nag bu ñëwee léeg kenn ku nekk am na nooy indaale kon képp koo xam ne yaa ngi ñëw raxasal sa ndab te xam ne yaa ngi ñëw ci barab bi ngay duyee kon seetalal ndab li te nga indi xol bu sell boo xam ne dana mën a taatan eh, ngir nga ngir nga jariñu eh, loolu daal mooy li nga xam ne mooy li sëriñ Gana wax te tànqe ko ci njàngalem sëriñ bi laa bi rek la goo xam ne tamit nag jëm na ci mbokki taalibe yëpp kon yàlla nañ ko bokk jariñoo ñu ngi lay sant bu baax a baax nag di gërëm ndax xat yi bëri na waaye yittewoo koo xam ne yittewoo nga liggéey bi saa su nekk muy liggéey daayira Muxaddamatul ma du ñëw bi rek waaye fu ñu toll ñu ngi jokkoo ngay eh, safoo liggéey bi di ko bàyyi xel ci waxtu wu nekk loolu nag gis nañ ko yëg nañ ko bu baax kon ñu ngi lay sant ci turu mboolem membre yi ci njiitul sëriñ Afia Bousso sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ne mooy secrétaire général bi mu sëriñ Abdoul Moutalib ak sëriñ Abdou Lahad maam Asta ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi fi ak commission culturelle bi ak commission communication ak mboolem membre yi nga xam ne rek ñoo fi liggéeyee ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex ak taysiir li nga xam ne moom la ñuy séentu muy màggal gi nga xam ne incha allah léegi tey weeru safar teru su ñëwee daal lépp loo xam ne mooy xat-xat yu am ci Sénégal wala ci àddina safar yóbbaale ko bi barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu